lu yëglekaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yëral turbine yéenekaay bi dañu indil alerte bi nga xam ni expert financier bi di Seydina Ndiaye daal na koy indi si xët bu njëkk bu turbine yéenekaay bi yëglekaay bi di ñu xamal nii gis nga moom Seydina Ndiaye xam-xamam màcc nag si mbirum financier yëkkati ay kàddoom nag jëmale ko ci li nga xam nii moom moo di pétrole ak gaz fii si réew mu Sénégal gannaaw nag ba coow li bare naan exploitation gaz fii si réew mu Sénégal mën na suqaliku nag réew mu Sénégal ba faaw rek waaye gis nga naa Ndiaye ne du atum 2024 bii de ndaxte li ma leer tama xam ko kay mooy jàpp leen ne pétrole ak gaz si réew mu Sénégal mënta jëriñ dara du am benn jëriñ nag si atum 2024 bii lii kay man maa leen ko wax kon kay bu leen sukkandiku nag ci ressources yooyee nga xam ne suñu borom baa baaxee nañu ko de te ngeen nar see sukkandiku nag ngir mën a renforcer li nga xam nii moom moo di gafagu état de déedéet te gis nga moom Seydina Ndiaye daal nay indi ay leeral nag explication yu leer nañ mu ngi ci xët bu njëkk bu turbine yéen bi de kon koy yëral yëglekaay bi gis bi ba léegi rek de yëglekaay bi dañu xamal nii ndiki tey jii si gaaw ñaar fukki fan si weeru avril bii jàpp leen ne moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye gannaaw sa réew gànnaar tey jii dina dégg sukkandiku Iba Diédé ndaxte moom jiiti réew mi Adama Barrow dina ko dalal nag ne ko président Bassirou Diomaye Faye su molle Bassirou Diomaye na ko abaje yëglekaay bi ñu xamal nii gis nga enjeu yu bari nag la tukki ne mekk googee nga xam ne nar naa si diggante réew mu Gambie ak réew mu Sénégal kon koy jàppale ne enjeu yi na de l'observateur di dikk ak ñun si tey ji nga xam ni réew mu Gambie ak réew mu Sénégal ñoo aaye si diggante njiiti réew mi Adama Barrow ak son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye yëglekaay gis nga lii ab cadeau empoisonné la de si digganteeg Barrow ak kii di Bassirou Diomaye Faye rek yëkkale kaay bi nañu lu ko waral kay mooy ndaxte gis nga sa réew mu Gàmbi si boppam la ñu daal di yokkee nag yokk gu jéggi de goo xam nii jëmale ko nag si droit de douane sa ciment bi nga xam nii sa ciment bu senegal la de kon koy jàpp leen ne coow am na ah waa baax na lépp dina leer tey jii si digganteeg ñaari réew yi nga xam nii daanaka si ab tukki ne meeku le président Bassirou Diomaye Faye war a amal sa réew mu Gàmbi enquête quotidienne ñu xamal nii gis nga son excellence réew ma woon fii ci président Macky Sall jàppale ne mu ngay doxal de njiiti réew mi Macky mu ngay doxal lii kay enquête quotidien moo ñu ko xamal yëgle kaay bi ñu xamal nii gannaaw lancement du pacte de Paris pour les peuples et la planète 4P ñeenti pays la de Macky Sall kay boo bëggee dégg dëgg mooy borom ñeenti pays rek pacte de Paris pour les peuples et la planète bi nga xam ni son excellence monsieur Emmanuel Macron sa réew mu France moo ko daal di dénk njiiti réew mi Macky Sall daal nay teewee nag réunion bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal nag sa printemps sa douane BM ak FMI Fonds monétaire international bi nga xam ni 4P si boppam ñoo ko daal di taxawal de yëkkalekaay bi ñu xamal nii gis nga moom ancien président de la république bi du Sénégal di njiiti réew mi Macky Sall daal nay dajeeg nag ak ki nga xam ni moom moo di ministre Cheikh Diba ak ministre Abdourahmane Sarr waaye du si yam ndax na moom njiiti réew Macky Sall si boppam dinañ ko dalal nag ndikki bi par son excellence monsieur Emmanuel Macron de sa doxal de góoru mare ma ngay doxal de waa baax na rek Sud Quotidien ne ko gis nga tukki ne meeku gi nga xam ni son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye war na ko amal ndiki tey ji si a gii sa réew mu Gàmbi nag yëglekaay bi dañoo xamal ni gis nga lu jëm si wàllum kaaraange jàmm ji sa xam ni daanaka jafe-jafe la nag si diggante ak ñaari réew ab œuvre la sa duwaanu Banjul ndiki tey ji ndaxte dana nekk ab politique boo xam ni xaritoo moo koy lal de si diggante ñaari réew yi nga xam ni daanaka benn la de Sénégal mooy Gambie te Gambie mooy Sénégal lii mooy dëgg waa kon koy tikku nemmeeku boobee mën na indi ay saafara kay si jafe-jafe ji nga xam nii daal nay am sa diggante Gambie ak réew mu Sénégal moo xam kaaraange ak lu mu mënti doon public quotidien ñu xamal ni gis nga honorable député Guy Marius Sagna fi mu ne nii mu ngay teg coono ki nga xam ne mooy président Bassirou Diomaye Faye de si priorité la de yëkkale kaay bi ñu fukki question ak ñaar 42 questions si ay laaj <laughs> ñeent fukki laaj ak ñaar yoo xam ni ay laaj la de moom honorable député Guy Marius Sagna moo ko jagleel nag gouvernement bu Bassirou Diomaye Faye te gis nga laaj yooyee yëgle kaay mooy wax ba léegi de moom honorable député Guy Marius Sagna ay ministre yu président Bassirou Diomaye Faye la ko laaj kay te gis nga kaay moo wax la yéen ministre la concerné gis nga ministre de l'enseignement supérieur ministre de la pêche des affaires étrangères de l'éducation yi daal da leen di jébbal ay laaj de waa fi mu ne nii guy moom laaj mi sax dafa mujjee faf bëri <laughs> yëkkale kaay bi nii nga Guy Marius Sagna boo na ndaxte retard des salaires retard paiement des salaires xam nii honorable député Guy Marius Sagna daal na koy wax de nee na gis nga salaire si boppam moo war di gaaw ñu koy fay sa daar daar nag waaye gis nga jëmmal ko nag si liggéeykat yi nga xam nii ñoom ñoo nekk si ay secteur lu si mel secteur hydraulique parce que ak sécurité yoo xam nii moom Guy Marius Sagna nee jël na exemple

yi ñoom ñoo di ministre yu Bassirou Diomaye Diakhar Faye de public quotidien ñu xamal ba tey jii si biir yëglekaay bi rek lay waxee pa Abdoulaye Touré bi la muy sentir si wér-gu-yaramam nag waa ji fi mu ne nii nee na wér-gu-yaramam dafa sutante de ah waa baax na rek ñu dem rek lii quotidien di dikk ak ñun nag si coow nga xam ni desoon si digganteeg Ousmane Sonko ak Mamour Diallo de gannaaw tuuma yi nga xam ni moom Ousmane Sonko gàlloon na ko sa loosu Mamour Diallo bi nga xam ni tey jii moo nekk directeur général bu ONAS te nekkoon fi nag ancien directeur général des impôts et domaines gis nga Mamour Diallo si boppam gannaaw 94 milliards yi nga xam ni Ousmane Sonko tuumaloon na ko yëglekaay bi bi nañu gis nga cour suprême moo dëggaloon nag ordonnance bi nga xam ni juge bu cour d'appel sa 12 août ndaxte waa cour d'appel si boppam ñoo setaloon wecc nag ki nga xam ni moom moo di Mamour Diallo ndaxte waa OFNAC si boppam présomption la ñu waxoon de yëkkale kaay bi nañu moom kay boo bëggee dégg-dégg Mamour Diallo kenn jotu du kenn waa kon cool moom nan la demee ni direct news di ñëw ak ñun nag si enjeu yi nga xam ni am na nag si diggante ak ñaari réew yi di réew mu Sénégal ak si réew mu Gambie yëkkale kaay bi dañoo xamal ni gis nga tukki nemmeeku bi nar a dox si diggante ak son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye ndiki tey ji si gaaw gi dafa bëri ay enjeu de yëkkale kaay bi daal di siy def ab taxaw seetlu na gis nga taarix gi nga xam ni am na sa diggante ñaari réew yii na gis nga réew mu Gambie ak réew mu senegal si boppam ñoo daal di bokk nag benn askan te ku si nekk nag ak sa aar ak sa cosaan de te ñoom ñaar ñëpp ko bokk nag waaye gis nga lu jëm si activité économique yi si diggante ñaari réew yi rek boo ko seetloo ba seetlu jàppal na si mbay mi la de si napp gi ak gi sàmm gi rek waaye du sa am wàllum njënd ak njaay mbirum énergie ak hydrocarbure moo taxit yëkkalekaay bi dañu xamal nii gis nga tukki nemmeeku bii dafa war a soxal ñaari réew yi nag ngir dëgëral li nga xam nii moom moo di kaaraange si diggante ñaari réew yi rek ak gi xaritoo gi nga xam nii daal nay am si diggante ak mu Sénégal ak diggante réew mu Gambia vox populi dañu xamal nii gis nga gouvernement bu Ousmane Sonko Sonko bi gaa ñaa ngay waajal tabaski de yëkkale kaay bi di ñu xamal nii kaay ma wax leen nag gis nga gouvernement Ousmane Sonko bi daal nay téye xar ba nag sa bopp ba bu sa yemoon mu neex gis nga sa béjjën ba la ñu téye nag sa béjjën ba la ñu téye di dox ak moom kon kay gaa ñi fi mu ne nii ñu ngay doxal de yëkkale kaay bi di ñu xamal nii gis nga moom ilimaan jëwriñ bii di Ousmane Sonko daanaka jël nañ nag ñett si ay mesures yoo xam ni ay mesures yu am am solo de ngir xar bañ a manqué nag si tabaski bi yëkkale kaay bi di ñu xamal ni gis nga mesures yooyee Ousmane Sonko programme bi lu ñu wax leer na bu baax anam gi nga xam nii noonee nag la ñuy caytu camion yi jugee fépp si Sénégal ngir mën a yóbbu xar yi si biir Sénégal kon kay nañu woyefal contrôle bii bu contrôle bi jafe de ay fi na nii ñu ngay doxal waaye gis nga gouvernement bi nee na nañu exonéré li nga xam nii moom moo di droit ak taxe yi de tey nar jëm si xar yi si tabaski ren bii tey am tamit li nga xam nii moom moo di autorisation ci camion bu nekk de te gis nga loolee a tàmbali nag ci waxtu woo weeru août si atum 2024 kon kay tabaski mi gars yi mën nañoo am xel bu dal vox populi di xamal nii gis nga secteur éducation nationale na ay kàddoom de daal ak naka la fas yéene daal di doxalee li nga xam ne moom di secteur éducation nationale bi yëkkale kaay nii moom Bamba Grace daal nay wax nag bëgg-bëgg ak yéeneem naka la ko fas yéene daal di doxal bil vox populi le réveil nga xam ni moom moo di Ousmane Kabiline Diatta nga xam ni moom lañ fi tuumoon mbirum force occulte de mbirum force occulte bi nga xam ni <laughs> gaa ñi tuumaloon nañ ko de yëkkalekaay bi dañoo bi moom Ousmane xamal ni gis nga gendarmerie si boppam ak i procureur andi wuñ nag ab toq preuve ab toq firnde bi nga xam ni moo gaaloon si loo sam ak lañ ko doon tuumal jëmale ko nag si li nga xam ni moom moo di tentative atteinte à la sûreté nationale dégg li kon li yëpp fii la mujjee yëkkalekaay bi dañoo xamal ni gis nga njabootu Ousmane Ousmane Kabiline Diatta fi mu ne nii seen xel teey na de te gis nga ab soupçon la am nag jëmale ko nag ci ab coup monté boo xam ni njabootu Ousmane Kabiline Diatta jàpp na ne régime APR alliance pour la république bi nga xam sa son excellence bon njiitu réew mi Macky Sall ñoo ko monté lii kay njabootu Ousmane Kabiline Diatta ñoo ko xamle yëgle kaay bi ñu xamal nii waaye du sa yam ndaxte nettali si laa ma ñu borom la dàqee te tontu du forox de ndaxte moom Ousmane si boppam fii ak ay bés yu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 sénégal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps